salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéenal safoo télé Sénégal TV dal leen ak jàmm tey nag bu ngeen ma gisee fii euh, ngeen xamante ni ci euh, salon laa nekk euh, kuy def pédicure manucure waaye nag ñu fekk ci bërëbu liggéey kaayam en même temps mu doon un artiste boo xamante ni mi ngi way mu doon taalibe Serigne Touba doon taalibe taalibe maam Cheikh Ibrahima Fall Cheikhouna Ahmadou Bamba mu sell mi maa ngi lay siyaar. maa ngi bu wér noo def Baye Euh, ñu fekk la ci biir salon bi euh, tey nga nekk di di di waar euh, te waar boo xamante ni d'habitude ci yaay faal yi ñu ko doon gis tey ñu gis benn baay faal boo xamante ni ñu ko fekk mu takk njalabaan rasta yi daal di daanu si muy muy muy yëy si ngoom di sàbbaal waaw gis nga sant mam Sara Fall rek ak bëggee gars yi may seetaan di ziar ñëpp ñu may xàmmee xam nga di shout out waa Télé Sénégal ah. mm-hmm. yeah bon salon nag man pour man job amul amul ay kii moo ko war a def wala kii moo ko war a def. Mhm. boo demee sax si yenn hôtel yu mag yi ah les hôtels euh, cinq étoiles ñu fay togg dëggantaan. Mhm. on les appelle les chefs. Mhm. ay góor la ñuy doon et tout. donc euh, war nga mun a def li ngay def sans pour autant nag nga efféminé wu wala genre. truc du genre c' est un job c' est un travail on le fait comme on doit le faire. et puis le reste ñu bàyyi koog yàlla am. yeah euh, mais naka ngay def pour cumuler ñaari ñaari business yi maanaam way bi ak nga xamante ni moo di salon bi. am na yeneen sax quoi pour ñi ma gën a xàmmee man je suis. élève de l' école nationale des arts jaar fa ak Chaoudat élèves yi ma fa nekkoon doon yëpp moi je fais des portraits des tableaux d' art décoration intérieure extérieure et tout tu vois. Mhm. ak euh, esthétique bi job bi nii. Mhm. qui est arrivé accidentellement dans ma vie. Mhm. ak way damay dem studio guddi. di Chaoudat studio yi gars yëpp ah, et tout waaw don Baye Fall rek yëpp laay boole ah doon euh, cumulé ko sa digganteeg maam Fall parce que am na son boo xamante ni euh, bëgg euh, maanaam yaa ngi ko ciy delloo njukkal sa digganteeg maam Cheikh man Baye Fall laa mhm. man Touba laa juddoo si wetu jumaa ji laa juddoo te man sama papa Tidiane la sama papa la Gallo Cello bii nii di way nga koy dégg muy kii boo xoolee man papaam laa mhm. mais Touba man laa juddoo te loolu sëriñ bee ko namoon si man ma tudd xaadim teg si ci sama famille mhm. gëm maam Serap Fall yaakaar ko wóolu ko nag xam ne góor yombul. xam nga doon Baye Fall mooy kii xëy dem waari. dóori waar Baye Fall mooy bëgg lu baax bàyyi lu bon. faale lu lu lu baax. bàyyi lu bon. comprendre nga est te nag dara gënul neex nga am sa soxla xam nga la ma fajal ko sa bopp nga bañ koo dagaan kenn daal maanaam dagaan balaa ñëw. day dem ba amatoo loo def mais bu fekkente ne mun ngaa jug fajal ko sa bopp demal nga defi ko. te sa jéem a xaar suba wala yooyu noonu. Euh, ñu gis ni euh, la majeure partie góor ñu ci nekk. mën naa joobaal daa joobal defal lu la neex. <laughs> ñu gis ni la majeure partie ñi nga xamante ni ñoom ñoo ci nekk euh, mhm. d'habitude da nga leen gis ñu yor yenn comportement yoo xamante ni dafa dafa xaw a jigéene tey est-ce que tey du dem ba salteel li nga xamante ni moo di seen liggéey. moom laa lay wax sànq moom laa lay dénoncé. Mhm. maanaam tëgg tamaak fecc ak lépp loo mënti def warul tax gis nga sëñ lamp dafa mës a dugg si oto. Mhm. wooy kii moom góor la war a jigéen sañ làmp si giwul de mhm. dani ko kum mënti doon ci moom rek mhm. du ko baax mhm. ndax acte contre nature boo gis loolu mooy yàlla ne waaw nga ni déedéet xam nga bu yàlla nee góor na góore jigéen na jigéene ñoom ñaar la assemblée pour ñu am doom la tey ñoo ngi naan ay mondialisation ay nouveau ordre mondial tey bu fekkente ni vaccin ngeen di daw pour ñu dañuy bañ ngeen am doom bu jigéen ak jigéen di nekk wala góor a góor di nekk fan ngeen di amee doom fa la fa la affaire bi njëkk a nekkee donc man pour man bu dee góor yàlla nga da nga war a mën a doon góor yàlla ba ku la sa sax xemmeem affaire góor yàlla ba bëgg a doon góor yàlla neew mhm. man man noonu laa doxee ah man mhm. waaw euh, nga génne école des arts Euh, ñu mel ni Sénégal fii aar dafa commencé perte valeur am parce que nit ñi joxuñu ko gëdd bi nga xamante ni euh, maanaam moom lañ ko war a jox le pourquoi euh, yéen ñi nga xamante ni yéen a fa génne doon ay ñoo xamante ni suñu borom dimbali leen seen xam-xam màcc ci wàll bi jëloo leen li nga xamante ni moo di affaire yi en main. jël affaire yi en mais mooy savoir entreprendre xam nga tey bu ñu jëlaloon affaire yi en main on va atteindre le gouvernement. Mm-hmm. parce que ñoom ñoo ñu jàngloo. Mm-hmm. ba ñu jàng boo amee diplôme c'est eux qui vont te laisser en rade mm man xaaruma la gouvernement je n'ai jamais attendu personne mhm. man je me débrouille comme je peux tu vois tey maa ngi def esthétique nii su ma amee envie dem defar tableau damay dem defar tableau mhm. si on me dit de venir jouer dans un concert ma dem comme par exemple nii dama war a dem am fu bëri fu ma war a joué ji su ma waree joué ji damay dem joué ji. Mhm. su ma waree dem studio i dem. Mhm. noonu la quoi. mais ban mooy gën a fay actuellement job bi nii mooy fay wala way bi mooy fay wala tableau yi mooy fay. yëpp ay fay un job mhm. quand on le fait correctement day fay. voilà man loolu laa ko jàppee ah man pour man yëpp ay fay faire le correctement day fay. ok tu le fais mal du fay. c'est loolu rek la pour jeunes yi nga xamante ni tey ñi ngi rêvé mel ni yow wala ñi nga xamante ñi ngi bëgg a entreprendre mais ils n'ont pas les moyens le conseil waaw loolu nag moo fi nekk mhm. le conseil je vais le donner au gouvernement moom ah ñu jàppale booy ya des jeunes qui ont du euh, beaucoup de talent mm -hmm. et qui veulent montrer leur talent donc il faut ñoom ñoo war a dem vers les jeunes mm et ñu bàyyi nu ñuy recruter dégg naa Macky Sall tey di si wax sax nu ñuy recruter c'est mal il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut tu vois xool ne kii mi ngi entreprendre ah am na lu muy commencer xaaral ma teg ko loxo su ma ko tegee loxo il va faire quelque chose de plus grand que ça tu vois man noonu laa gis ne noonu ngay gérer quoi indiscipline indiscipline bi ñu gis ci dëkk bi en tant que artiste nga nekk porteur de voix du ñàkk nga wax ci parce que gis nañ ci stade yi suñu doom yaa ngi dee euh, violence bi bari na xale yi respecte tuñ mag ñi mag ñi aussi tamit am ñoo xamante ni ñu xamadi lañ euh, tey ban conseil nga leen di jox indiscipline moom euh, dafa yàgg Sénégal mhm. comprendre nga man pour man nag nit bu dee fi la war a yare yow foofu lañ la yaree ah je pense que même boo nekkee feneen foo xam ne ñi la yar nekkuñu fa sax di nga am discipline mhm. bon li ma gis ci làmbaji nag du chaque jour lañ koy gis ci làmb ji. Mhm. man nag maa ko wax a ah. mhm. man maa ko wax quoi dama gis ay boo yu bëri dañuy jël seen vidéo bandi bandilu yow yee eh, nangam nangam incitation à la violence pour commencer loolu kenn du ko def. Mhm. di def publiquement ay menaces loolu kenn du ko def. am na ay acteurs yoo xamante ne nañ xoolaat seen bopp ñoo ngi ànd ak ay bandi ay ay boy yoo xam ne tekki dara. yow ngay ñëw di liggéey parce que làmb ji moo lay fay. ngay ànd ak koo xam ne day fay làmb ji maanaam da koy fay comme làmb. Hmm. waroo ànd ak moom. da nga ko eh mois moi terminer ma voix. nga dem quoi mais di ànd ay bande yaakaar ne public la loolu du public pour man. te euh, sport national la dañ ko war a defar dañ ko war a tatagal mu gën a jëm kaw quoi waruñu ko gérer nuñ ko gérer nii. dernièrement luñ gis si làmb ji nii te lépp bandi bandi la boo yëpp kenn du si bandi kenn mënu si mënu si rey nit kenn mënu si saaga yaayam. bandi bandilu rek ku si laal sa benn kénkali ba wala muucu sa tuuti kii xam nga yaakaar na yow fi mu toll nii yow bandi nga fekk barke alxuraan du kenn du si bàng yéen ñëpp nag kenn du si bàng. dañuy bandi bandi. yéem noonu la fa demee nag. Euh. affaire bi Baye la du bandi. te jullit pire mooy jullit bi nga xamante ne jullit yeneen yi mucc nañ ci ab ab loxoom ak làmmiñam. Mhm. jullit pire loolu la mais man Baye Fall la di duul xam nga loolu warul mën a nekk. yeah noonu la demee nag. Euh, élection locale yaa ngi ñëw. Euh, ban euh, jàngat nga ciy def parce que réew mi bëri na ay candidat trop ku nekk ngi xëccu naan maa war a doxal réew mi man maa war a yor mairie beeg yooyu yow du ñàkk nga am ci ay kàddu yoo xamante ne nga ko yëkkati. waaw man loolu la ma siy wax mooy. Mhm. toujours damay ñëwaat si booy mhm. gis nga politiciens yi bu ñuy jël seen ay décision seen ay salon lañ koy jëlee. ñoom ñooy far ñooy lekkandoo seen ay gato teg seen caviar di naan seen vin di ko jël ndànk yow doo yëg mhm. mais bu xeex jotee ñu woo la ne la kaay xeexal ma yéen da ngeen a war a bañ loolu seen yaay yi liggéeyuñu loolu quoi you naw ku leen jox xaalis lekk leen ko ngeen dem wut seen ay carte d'électeur ngeen formalisé wu bu euh, teg kenn jotee ngeen xool kii nii mun na yor suñu avenir gox ngeen jël ko fal ko mhm. man noonu laa ko gisee quoi. Mhm. yeah te politiciens yi tamit ñu bàyyi di utiliser booy yi you know bu élection yi jub see ak seen sacrifice yi ñuy def aussi ñu bàyyi suñu doom yi ndaw yi ñuy sacrifier puune yi et tout xam nga loolu warul mun a nekk affaire dafa war a naturel man noonu laa ko gisee indiscipline indiscipline bi mi ngi commencé si gouvernement bi ak politiciens yi ñoom ñu si bëri gëmuñu réew mi seen bopp lañu gëm. Mhm. seen bopp lañ fi nekkal. Mhm. bu dee jotee ñu woo booy ñu dee bu lekk jotee ñoom ñu lekk ko. te nag ku si cóolle seetlu leen depuis 1960 ku si cóol cóolle day tukki. politicien bu cóolle day tukki kuy waaja a cóolle sax day tukki yéen ngeen di dee comme ay weñ te dañ leen di fàtte prenons l'exemple de Mamadou Diop kan moo ko tuddati. kenn tuddatu ko. Basirou fay nangam nangam kenn tuddatu ko même Fallou Sène ñu dem jox ay kër ay non ay pépite de l'état doomam dinañ ko jël on s'en bat les couilles de ça bakkanam moo gënoon quoi xajoon na fi you mm-hmm. def leen seen moyen lu lu wér ne politiciens bu ñu jëlee les décision di paddoo di di paccoo affaire yi du ngeen ko yëg muy Macky Sall nag muy Sonko muy Barth et tout je les mets tous dans le même lot ñoom ñëpp bu ñuy séddoo doo leen ko yëg mais bu dee jotee si lañ leen di woo donc demee leen seen maayin te nag ñoom ñëpp dañuy dem bàyyi fi Sénégal faral leen Sénégal Euh, faral leen Sénégal euh, mais ci job bi ngay job euh, yan situation nga fi ma sa mës a dund parce que di nga gis façon nit bu nekk di nga gis waga yi di nga di nga di nga gis maanaam ñi nga ñi nga xamante ni ñoom laay ba ñu tudd seen tur ñoom ñoom ñëpp di nga di nga leen gis situation yi ni nga koy dundee. yaa ngi doog a poser question nii laa siy tontoo bon li ma gën a metti ñii dinañ ma bàyyi ma fenn chaque jour dama naan man est ce ma bàyyi. Mhm. man damaa war a bàyyi sax damaa war a dem wuti leneen sa nangam nangam parce que da ngay gis koo xam ne day meree feneen. Mhm. ñëw maanaam xiinee noor bëgg koo tawee sud c'est pas bien ay da bi bipolaire ay di ñëw di xool ndax nit ki changé na wala changé wul yëre bi nga soloon démb solo loo ko tey et puis looy jaay lu nekk rek lu dul taalibe ak foo mënti dem boo fa boo fa eggee boo bëggee ñu gën laa respecté yow jaay jaayal ak taalibe mm-hmm. bu fekkente ne ñu bëri dañ naan le client est roi mm-hmm. boobu expression mhm. c'est révolu le temps des rois n'est plus mhm. nit ki da nga koy maanaam demande la ak offre da nga koy am loo koy jox xaalis boobu da koo yaakaar war si dundal njabootam mhm. mille francs yi nii ñu lay jox nii si ngay dajale pour am sa avenir mais yow it sa savoir fair nga leen di nga leen di euh, jox quoi donc leen rek moom moo mën a nekk seen diggante pour affaire yi gën a yaatu mooy le respect mutuel te ñu bëri dañuy ñëw bu ñu gisee benn travailleur rek dañuy jàpp ne kii benn wànq la benn gunóor wala benn mbóot je le dis ah si écran laa koy waxee ñi ma xàmmee ñëpp man je me laisse jamais faire voilà je me laisse jamais faire. ok mmh, complètement. noonu noonu noonu ngay dundee ak ñi nga xamante ni maanaam ñoo di waga yi fii ñëw des fois. di waga amul waga amul. non waga amul da ngay ñëw da ngay waga wagalu kay da ngay ñëw waga wagalu boo ñëwee fekk. ku la gën a waga ku la gën a waga après waaw. lan nga bëgg ma dessin ko. waga amul dañuy ñëw di waga lu fekk ni yow yow mi toog yaa leen gën a waga parce que man man maa ngi nii xëy ñëw toog fii mm-hmm. su ma neexoon dem def yëf lu yomb ma maa ngi ñëw toog fii nii di job donc yow boo ñëwee da nga maa war a encourager sax mm-hmm. maanaam wax man respect par exemple prenons l'exemple de cette dame xam naa ko yàgg naa yàgg yàgg yàgg est-ce que mës nañoo weccoo mm-hmm. que attitude moom mooy wane sama aptitude su ñëwee règle ma ñëw règle boo ñëwee rapporteur ma doon compas barke alxuraan mun noonu lay doxee. mais le moo de la fin euh, parce que aussi tamit euh, client yaa ngi fi te liggéey bi dafa war a continuer euh, tey lan ngay dénk Sénégal yi ak la jeunesse ñi ñi nga xamante ni ñoo lay bàyyi xel ak ñi ñi nga xamante ni ñi ngi déglu sa conseil bu rafet. li ma leen di wax mooy jàmm moo gën jamaa te yàlla jàmmar doo jàmmarloo jàmm moo gën li ci sa poos barke alxuraan am leen jàmm fu ngeen nekk nekk leen si jàmm te xoola boo dee dëgg boo xëyee am na koo tongool si koñ bi sax jàppal ne li ngay julli yàlla gis ko barke alxuraanu karim jullit dafa am fu mu war a commencé mooy li ma waxoon sànq jullit dëgg mooy ki nga xam ne jullit yeneen yi mucc nañ ci sa loxo mhm. ak ci saw làmmiñ mhm. loolu la quoi man loolu laay conseillé ñëpp nañ la nekk si jàmm et puis ñu liggéey mhm. liggéey am na fi nañ liggéey na ku nekk taqale am loo defal sa bopp ndax fii li nga bëgg yow rek yaa ko mën a defal sa bopp fa nga jëmit na nga ko xam même boo nekkul ci yoon bi na nga xam ne man fee laa bëgg a dem le reste le soleil brille pour tout le monde. bul xaar kenn xaaral yàlla. waaw loolu laa am lu may wax. merci beaucoup jàmbaar euh, yéen ko dëggandoo kàddu yu rafet yooyu nga xamante ni moom euh, Cheikhouna du Bamba sax laa koy woowee ndax tur bu màgg boobu euh, mu juddoo dëkk boo xamante ni Touba dëkk bu sell man ak moom ñu bokk dëkk macha allah di ko ñaanal liggéey bi muy def yàlla na ko sunu borom teg ci joxo di sama waa dëkk nag waa Mbacke mënu ma leen fàtte waa Mbacke ah ngën gi dëkk <laughs> gànga yi <laughs> siyaare ayca ma nga noonu euh, je vous donne rendez-vous très prochainement incha allah rabbi ma àndoon nag euh, euh, Télé Sénégal waaw ànd ak Cheikh Rachid Barham di ko ñaanal jàmm ju bëree bëri le jeune cadreur nee naa la bu góor ñëpp meloon ni moom benn jigéen du jooy ndax nob na soxnaam tabarfakallah macha allah Rachid mon ami le cadreur l' international jaaw ci yow bi nga am